salaamaaleykum wa rahmatullahi wa maa ngi nuyu mbokk yépp di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak wér sutura a ah, xam naa daal dana am loo xam ne dana ko sàkku ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci internet bi ak nekk ci yenn ci groupe groupe whatsapp bi ah réew mi ñu dëkkee developeegul am na lu bari lu des. ci réew mi te gis naa ne suñu deful attention danañ taal réew mi ci ay wax yoo xam ne amul benn njariñ dañoo toll ci lu boole nit ñi ak lu defar waaye nag ñu teg ko lépp ci kaw dëgg fam am rekk lenn lu ma bëgg leeral dafa am ku ma dégg mu wax ne tudd ku sant Caam ne moo taalif siir donte wax ji sax utalu ko benn preuve waaye nag pour lu bañ a jaxase xelu ndaw ñi ba xëy na mu jaxase seen xel naan lii am na wala amul moo tax ma ñëw pour leeral tey Taysiiru Sir Haj Malik ni mu ko taalifee Sir Haj Malik 1883 la ko yàlla may doomam bu ñuy wax Sidi Ahmed si mu toll ci ñaari weer mu ne comme que yàlla mayee na ko ñaari doom te mayee ko ko àll da leen di yóbbu ci nijaayam ak yaayam muy gaaya bi mu jógee ko ndar di dem gaaya la jaar dëkk bu ñuy wax ndomba sànjiri ndombo sànjiri mi ngi fa fekk benn góor gu ñuy wax moor siin kan dëkk bu ñuy wax siin lay kan la bàyyeekoo woon góor gi ñuy wax sànjari jóob moo ko fa indi pour mu jàngal seen njaboot Seydi Hadji Malick gis ne góor gi ku yàlla dogal la mu jekk alxuraan te bari xam-xam moom Seydi Hadji Malick daan def benn téere mu jàng ko ci luy tolloog ñetti boroom xam-xam mu continuer tukkeem dem gaaya Sidi Ahmed si mu ngi tollu ci ñaari weer soxna Fat si mu ngi tollu ci ñaari at keroog bi ñu àggee maam alfa moo awu Sidi Ahmed si bankar ñi baaraam ya ca ñaari weer may ko salaatul fatiha moo tax Sidi Ahmed daan na tooñ Sëriñ Babacar si ne ko ah maag yow nag bokkuñu yow sunu bàyyi moo la jox wirde te man ki ko jox wirde mooma jox wirde bi mu retourné tukkee maanaam bi mu defee nganam ba nganam jeex mu delloo siwaat njaboot gi ndar la door a dem ndomba sànjiri ca góor gi Mor Siin Kan ba 1885 ci la seex si Xaaji Malik radiallahu anhu taalif Taysiir bii ñuy jàng bi mu koy bind mu ngi mat bésu dimanche ci guddi la tëdd yonentu yàlla Muhammad feeñu ko ne ko téere bii nga doon taalif muy tey siir nangul naa la ling ma ci tagg te di wax ne képp ku ko mokkal yàlla araamal yaramam safara ndax yonentu bi moo wax sallallahu alayhi wa yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yoo xam ne ku ko mokkal yàlla araamal sa yaram safara Seydi Hadji Malick dafa jël juróom fukki tur ak juróom tëggaale ko ci biir tey Taysiir muy dimaas ba bët setee di altine ca leetar jóge ko ndar ñu di ko annoncé gane àdduna Cheikh Sidi Aboubacar radiallahu anhu oto ba mu dugg sax ba dem xam nañ ko kon nag dafa am loo xam ne ñaare di ko wax gënul ndax yàq-yàq lay jur ci côté bu nekk nag laa ko wax muy ñi aju ci kër Cheikh Sidi Hadj Malick ak ñi aju ci beneen kër nañ seet liy defar ñu di ko wax beneen bi képp kuy nettaleeti histoire boo ko jekkuwul noppil histoire bi am ci diggante ñaari kër yi mag ña nettali nañ ko bi ci gën a leer ñu nettali ko mooy waxtaan bi ci alaaj Ibrahima ñett def beneen bi ci des lu ci bëri yàlla dogal na ñoom mag ñi ñu séqoon ko seen mbaax ak bëgg yàlla moo taxoon ñu doon ko def bu dee Seex Sidi Aj Malik li mu doon def bëgg gum bëgg yàlla ak bëgg gum bëgg yenantu bi ak bëgg gum bëgg ay mbokki taalibeem moo taxoon lim doon sonnee mu di ko sonnee su ko defee nag loolu nañ xam ne ñoom rafetal nañ baax nañ ba de ñun ñoo des ku ci ne daanaka sa bopp moo la yitteel ak tiitaru ak gis sa bopp waaye la mag ña defoon asakaam sax defagoo ko mag ña taxawaloon nañ ay daara ay nit ñi di ci jàng daan nañ jaamu yàlla selloon nañ rafetoon loon nañ ba jóge ko léegi nag ñun ñoo ci def te yàlla nee na wa axsinu inna allaha yuhibbul muxsinina lii donc laa doon leeral maa ngi jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.